gis nga oto yi nga gis nii lii yëpp ay oto Sénégal xool gis nga mooy ñun ñi mën a doon ñoo fi nekk gis nga oto yëpp fii la ñu marocain wax nañ fi gaare fii lañ nekk maanaam lañ gaare suñu oto yi gis nga ay camion fourgonnette ak particulier ñu ngi nii lii mooy oto yi suñu oto yi.

mardi mardi lañ fekk ñett lañ tëj lañ tëjal lañ ñu tëjal ñun mais tëjaluñu euh, marocain ak mauritanien fekk ñu doon jàll kër bi ñëw ba keroog sax kaas nañu ba affaire yi xaw a xaw a débordé bon mais comme bon ñun ay sénégalais lañu bon toujours yar bi ñu yar macha allah dañoo am dal bon bu ñu dalee ñoom sax xam na ne ñun ñoo leen ñoo gën a daal ci yeneen classe yi donc ñu leen ñëw wax ak ñun problème mënoon na fa am mais ñun dañ ko mujj apaiser ba ba coow amu ko. bi ñuy waxee noonu da ngeen retourner à à quatre-vingts kilomètres de de la frontière. à Daxmar. dana mujj nangu. bon yeneen fii sax raas sax ñu ngi doon bañ naan duñu dem duñu dem duñu dem. man ngóor ci maanaam dama ko poñe daan na ko ba mu mujj waa ji moo mujj le chef de gendarmerie moo ñëw ne boo demul ma def la lu bon. mu soog a bi. topp suñu ginnaaw ñu ñoo ko mujjee jógee. donc situation la ñuy vivre ñun ñëpp dañoo bëgg a lii lépp gis nga ko camion yëpp dañoo chargé te lii nekkul c'est la première fois ñu koy def di dugg Sénégal camion yi nga gis fii yëpp Sénégal lañ jëm te dañoo chargé fourgonnette yi aussi dañoo chargé gis nga. matricule oto bi tey jii Dakar oto bi fu mu toll nii la jëm oto yi dañoo chargé ba fees Tamsir. li may wax Tamsir Salim mooy li ñu wax rek pour ñu tëj débat bi ndax fu mu toll nii wax waxaat du bëri wax. wax yu jeexagul la. waaw maanaam fii daal coono bi fi nekk boobu ba léegi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp xam nañ li fi nekk oto yaa ngi nii nit ñaa ngi nii dèjà buñ mënuñu woon jël groupe nit ñëpp di leen groupé fii parce que comme jamono ji loolu la ñuy bañ. te ñu nekk soriwuñ dara gendarme marocain yaa ngi ne bu ñu gisee ñu ko woo dañ naan li ñuy tere dañ koy def te lool du respect maanaam li ñuy waxaat ak encore une fois mooy état Sénégal lu mu ñu mën a jàppale nañu ko jàppale te ñu koy ñaan nekkul dañuy ñaan ndax nekk fii toog fii marocain yi maanaam dugal nañ ñu foo xam ne donte dañ faa groupé wu mun nañ faa wér suñuy mbagg ba bërset mhm. def nañ fi une semaine def nañ ko ci tëli bi di fanaan ci oto indi nañ ñu fii tey la lundi lundi bi passé la ñu fii noonu ba lundi tey mardi bi passé la ñu commencé jox kenn ku nekk benn bon boo xam ne trente dirham la trente dirham mooy mille huit cent francs CFA waaw boobu la mille huit cent francs lu ñu xëy na sax li ñu soxla suñu repas wu journée mais quand lépp dañ koy dañuy saluer geste boobu voilà sénégalais yaa ngi nii sonn nekk saan saa yu ñu xëyee ku nekk day ñëw ci sa oto ubbi ko parewaat ci xool leen oto yaa ngi nii xool ñaata doomu sénégalais ñoo fi nekk nii yor oto comprendre nga dem oto yi yëpp ba ci bis bi fourgonnette yi oto yi yëpp waaw tous les voitures sont là regarde moom gis nga doomu sénégalais la Casa moom mu ngi jóge ba dëkk bu ñuy wax Tanger gis nga ko mu ngi nii di yegg si otoom kii. waaw Sénégal sëñ bi def tur bi naka la. sa man Pape laa tudd Pape Sané. Pape mel ni sénégalais nga. waaw kon yéen lan ngeen di dund fii ban situation ngeen di dund fii. ngay sonn nañ fi trop sonn ñu daal affaire bi xamuñu ko woon ko woon. ñu ci frontière bi ñu donc boobu léegi ji ngi fii bu ko génn mënuñoo génn. tey jii maanaam ñaata fan def ngeen ko fii. tey la trente mars def ngeen fii est-ce def ngeen. fi lu mat deux ah. fi deux semaines maanaam ay 15 jours quoi. ok léegi état Sénégal est-ce que mës na def effort pour ngeen jóge fii dem Sénégal. non non état est-ce que autorités yi tamit maanaam jokkoo ngeen wala jokkoowu leen. non non dëgg jokkoo ñoo kenn. Ah, léegi fu mu toll nii lan mooy seen bëgg-bëgg. nii bi rek. waaw fekk suñu njaboot. waaw yàgg nañ fi trop te xamuñu kañ lay jeex. ok vraiment bu ñu sañoon tey tey gouvernement Sénégal jàppale ñu. waaw ngir am fekk suñu njaboot. Ah. est-ce que frontière bi dañ ko tëjal ñëpp wala yéen rek lañ ko tëjal. non tëj nañ ko mais actuellement je euh, pense que oto marocain rek ñooy jàll. marocain yi jàll bi. waaw ah, mais Mauritanie yi tamit je pense que ñoom ñoo ngi dugg di génn. waaw parce que ñoom dañuy duggante entre ñoom. kon léegi lan mooy jafe-jafe ba yéen ñi nga xam ne génn dëkk bi nga xam ne nit génn dëkk moo gën a yomb ba mun leen a génn. waaw parce que ñoom dañuy wax ni ñoom feebar moo tax ñoom ñu tëj. sëñ Saliou Mbacke. ngi koy siyaar yàlla suñu borom yokk leeram tas ñu ci barkem lii moom ku gis ak war a xam ne lii sénégalais moo ko moom voilà moo ngi nii suñu oto yaa nañ ci trop trop trop trop oto yi boo gara niñ gaare xam ne gëj nañoo daw seeni poussière ak yu demee noonu fii la ñu nekk benn genre station la aire de repos fii la gars yi nekk dëkk bii wax 12 mu 80 Frontier Марокко.